léegi bu jant bi dee ñu ko waxee woon rek leer bi jëm ci asamaan si leer bi jant bi dafay am temps yoo xam ne xaw na benn bëccëg ba duñ ko gis dégg nga bu guddee bu sow léegi bu fekkente ne weer yi ak jant bi ñu ngi ci sowu jant bi njëkk a so ceeñeeri jant bi leeraay bi wàññiku mu daal di mën a gis weer yi fekk weer yi tam jóge na so moom itam léegi noonu ñu ko def xam nga jant bi njëkk na koo so fii nu jaar ci sunu so daf koy gën a raw di ko gën a raw di ko gën a raw di ko gën a raw ba bi ñu naan ba jotaat ko ba jotaat ko mooy bi ñu wax naan weer yi xëy naa xëy nga xam ne ñoom ñaar daanaka ñooy fenkandoo loolu mu ngi am ci fanweeri fan wala ñaar fukk ak juróom-ñeent léegi ni nga xamee ne bi bi bi weer bi di suux ànd ak jant bi comme ni ma waxee ne jant bi gën na koo gaaw bu ñu jaaree si bu ñuy bu ñuy fenk fële ca Makka dana fekk jant bi raw ko loo xam ne dana ko mën a dana ko mën a raw ba nga xam ne weer bi leeri jant bi du ko tee feeñ ba daañu ko mën a gis ndax ñoom buy so buy tollu nii fii rek so na fa ñoom boobaa nag fekk comme jant bi ni mu ko gën a gaawee jiitu na ko ba so te weer bi weer bi des desee so tuuti fa ñoom bu ko defee weer bi mën a feeñ loolu nag ak ségul ci ñun loolu ak ségul ci ñun moo tax toujours ñoom ñu du njëkk ci ba tey weer bi mënoon waroon na mën a feeñ nga xam ne normalement bu asamaan setoon day feeñ niir ñëw muur ko ba duñ ko gis mu leer na ne waroon na feeñ duñu ci duñu ci wori duñu ci wor ndax gisuñu ko gis rek la wax mu delluwaat waxaat ne indi na xadis boobu ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi mu ne li ru'yatihi tekkiwul ne yow da nga koy teg sa bët soog a soog a dog wala soog a wor ah loolu kay ko kay ku ne xam na ko waaye li ru'yatihi lu mu tekki ñaar ñu maandu wala mbooloo gisandoo ko boobaa la nuy doy ne la nuy doy nag ne feeñ na waaye ku nekk mënu caa teg sa bët ñi bañ a woor itam yaakaar naa ne waxuñu ne rek dem bu ma ci tegul sama bët bu ma woor. koor gi duñ ne bu ma ci tegul sama bët kon loolu xëy na xëyul loolu. kon du béy du woor encore leneen weer yi mën na feeñ bu ne dëkk jullit yi nekkoon xam ne at lislaam fay daw xaas yi ji mooy ki lëngoo mbiri koor. xam na charte yi sharia ak charte yépp ci ku ñuy nangu seedeem li ñuy wax tajriix ak taadil xam na ko nit ki bu ñëwee am na ñu ko xam ñu ko xam lañ koy laaj ñooy attanawaat ne ko màng la wala màndul xamal nañ ko fen wala doyu ndax nangam ak nangam xaadi ji bu bu gëstoo loolu ba mu sax fi moom nu mu ko mën a xamlee rek moo xam dafa taal ci kaw montagne wala dafa fetal wala dañuy sor xolle wala lu ñu mën a def rek bañ xam ko ba yëgal ko nit ñi rek booba nit ñi noonu ñu koy yëgee ndax boobaa kenn sañul amul kenn nit koo xam ne wala benn borom kër wala ki sañ ngaa def loolu xaadi ji rek ko sañ a santaane nga xam ne bu jibee rek ñu xam ne xaadi ji ko santaane te xaadi ji dafa am charte yu muy dëgg ba ba loolu waa tax kon loolu nuróowu la yow nga dégg feeñu bu weer bi ci koo xam ne kii ñoo ko waxoon rek boo amoon sa xaalis doog ko néega yu mbooloo yëpp ndax bëy la ah mun na weer wi feeñ na nga nga woor wala weer wi feeñ na nga wori kon yow sa xaalis la gënal sa diine fonkuloo sa diine sharia daf ñu sant suñu diine ñu léemtu ñu jàpp la gën a léemtu mooy mu fexee def te ak put ba am lu doy lu wér wala mu am trente ni hadis bi waxee fa in umma aleykum fa ummu salaasin min kamali sax mal shaban rek bu gisee daal ñaar ñu doy daal ñu boo xam ne ñi xam nañ ne ñu doy la ñu gisandoo ko teg ci seen bët kenn du ci ne man diwa ma wax bu baaw yoon wi war loolu képp ku ko dégg li ma daan wax it ñu ñaar mën nañu bokk benn kër kii yoon woorloo ko kii yoon bañ koo woorloo wala wala kii yoon wariloo ko kii yoon bañ koo wariloo mooy bu ñu bokkee nekk ci kër gi man ñu seen weer yi man ma gis ko teg ci sama bët nga xam ne weeru koor laa gis nii man yoon woor loolu aw ma ku ma ñaareel ñu ci des bu ñu woor ñu dëkk ci kër gi te aw ma ku ma ñaareel bu ñu woor woor loowu leen waaw kon kay wax dëgg yàlla mbir mi dañoo wàcc fa mu nekk rek wala ñaar ñi ko gis yoon ne leen maandu leen ñu récusé seen seen seen témoignage ñoo xam ne ñoo woor ñi ci def waru ñoo woor kon nag li nga xam nga bi fi mag ñi nekk yëpp dëkk sàngam daana woor dëkk sàngam woor ñëpp parce que ñee xëy na gis nañu leen doy ñii gisuñu ko waaye li indi problème bëgg a féewale jullit ñi mooy rajo bi télévision bu ñu bàyyi woon jullit ñi rek ñoom seen bopp ku ci dem ba jot yoon jot la nga xam ne lii nga xam kat yoon lii la nga gis kat yoon wax loolu nga woor rek bañ ko def problème ñu bañ ko def benn problème nga xam ne l'islam noonu la ko yàlla tërale l'islam calendrier lunaire ci la ko yàlla tëral tëralu ko ci calendrier solaire bu bëggoon nit ñi di woorandoo bis di woorandoo kon fa calendrier solaire mois de janvier nañ ko woor wala février wala mars wala avril du am kenn ku dogal ku dogal ñëpp a yem waaye yàlla namu ci loolu calendrier luni calendrier lunaire ci la tëral l'islam te koor ak wor yëpp daf ko tëral ci ñaari seede ñu maandu wala mbooloo mu gis waaye waaye waaye koo xam ne ci xaq ji jot na la xaqullaahi nga xam ne lii yoon woor nga waral buñ ko def problème jullit ñi li ma si gën a naqari murid yi jaar fii ñu ne tijaan yi gouvernement bi la ñuy wooral tijaan yi jaar fii ne murid yi sëriñ si la ñuy wooral la jur loolu dara gën koo sox ah jullit ñi benn lañu benn lañu dégg nga téléphone kenn ku nekk kii lay téléphoné xam nga baatam xam nga baatam la dee xam nga bu la dee li mu lay wax yow xam nga ko
wala su su feeñee histoire yi daal du ci lu dul ci ñi jottali dañ ci lay ci jot léegi bañ nañ ko ba sëriñ sax kenn waxatu ci waaye damay wax alors ku nekk na def lan lay sax na daal saxee rek parce que ki koy jottali mooy woote pay mi bi man ki ma ko déggee ci rajo bi.
waaw moo naan kaay leen jënd pay mi.
dugg bi waaye yi nga xam ne moom la suñu borom di def ci lépp lu mu dugg kenn ku nekk ñu ngi tànne benn jamono ci jamono yi ñetti jamono tànn béréb ci diggante béréb yu bëri tànn melo tànn sexe tànn lépp nga xam ne lu ci nekk amoon na liberté tànn bu ko neex mu tànn léegi ñu ngi jëm ci uluhiya ak li ci gannaaw mu ne sumal uluhiyatu minha tu'rafu adaduha ayun lada man ya'rifu a'ni wujudan qidaman summa baqa summa mukhalafatuhu ma khalaqa summa qiyaman summa sam'an wa basar summa kalaman jalla an hasl al-fikr wa kawnuhu aydan sami'an wa basir mutakalliman bima bihi jadir mordu bee su ñëw al uluhiya melo bi tax mu nekk ilah moom suñu borom tabaraka wa taala fukk ak benn yooyu mu ne sumal uluhiya topp uluhiya tuarafu def na xam min haa ci ay jom adaduha ab limam muy ayun fukk ak benn la daa mën yaarif parce que ko xam nga ne ko loo bëgg a wax mu ne ah nii li ma namm maa ngi bëgg a wax mu juudan ak am amu uloohiya mu wuteeg amul mbindeef yi comme tàmbaliwul fenn te di yem te du yem fenn kenn sàkk ko sàkkuy boppam jékkiwul jékki am te lépp ci coobareem la xidaman aku jëkk goo xam ne tàmbaliwul fenn mais azal mooy azal azal ya suñu bàqaatoo ko des goo xam ne du yemi fenn itam mosu fee ñàkk nekk naka jekk rek suñu borom ngi fi naka jekk mosu fee ñàkk nekk tey du dem mukk ba mu yem bañ ne fii la yàlla yem amatul déedéet déet faw rek jamono dana mën na jeex waaye moom day wéy ba jamono amagul it daf fee nekk kon looloo tax nga xam ne jamono mënu ko ëmb kon mënu la nekk ci jamono naka noonu itam béréb am na te béréb amul ba béréb amee it na mu nekkoon ba béréb amagul la nekkee kon nekkul ci béréb bu ñu demee ba béréb ñàkk itam day am xam ne kon moom ak nekkam amam gi mu am génn na jamono génn béréb amul tàmbalikaay amul yem su ma ma xaalifatuhu topp wuuteem ak maa xalaqa la mu bind wuuteeg ni mbindee fi mel ak la ñuy xalaat ak la ñu xam ak la ñuy jëf lépp loo xalaat rek suñu borom wuuti na loolu loolu loolu meloom xëjul ci xel xel xamu ko xel mënu koo imaginer itam ndax xel lu ñu bind la kon am na lu ko peeg am na limite ci wet bu nekk te nit ki xelam li muy dem daf koy tibbee ci li mu xamoon te li mu xam wuti naag suñu borom tabaraka wa taala kon xel mënul fexe ba get lenn ci ay meloom su ma xiyaamal topp taxaw bi nafsi mooy autosuffisance amul lenn lu mu wuti fenn amul déplacement amul mébét amul lenn lu mu bëgg loo xam ne dana ko wuti mën a wuti fenn autosuffisance maanaam daal ni mu taxawee lépp a mat lépp a mat naka jekk nag te amu ci loo xam ne dafa ñàkk woon ne mat ba mu yàgg mu mat dara amul muy sosu kon su ma sama an topp dégg goo xam ne bokkul ak déggu lenn lu ñu bind foofu mutasile yi wuti nañu ndax ñoom dañu ne essence yàlla ci boppam zaatam ci la dégg gi nekk moo ànd ak dégg waaye bu caagee ni mu am lu muy déggee déggukaay ahlu sunna si nag dañu ne samiun bi samin ak dafa am ak dégg amul bu gis pour mutasile yi nag ñoom dañoo def tajrid jàpp ne bu ñu nee dafay dégg ci ak dégg lay dégg wala ci ab gisam dañuy def kon yàlla murakkab muy cër nit cër yi dajaloo ba nekkal ko bët am fii nopp am bakkan loxo ki mu nekk koo xam dafa am ay ajisa loolu la ñuy daw ba ne samiun bi xayri samin basirun bi xayri basarin loolu la ñu wutee ahlu sunnati ndax ahlu sunnati ñoom li ñu wax ci toxal bu wér lañ ko dégg dégg kon nag da nga naan suma samaan topp ak dégg ca nam yelle ci moom pour nu mën koo dégg ak dégg la ñuy wax ca nam yelle ci moom waaye xamul mu dégg de mu dégg ga demee wa basaran akub gis boo xam ne ca na mu yelle ci moom dégg boo xam ne dara du ca facc du am dara lu mu déggul gis bi itam du am dara lu mu gisul waaye xamul na mu demee na mu yelle ci moom rek la nu fase nag nana la nekk su ma kalaaman topp wax yoo xam ne day wax te du noppi du noppi ba mu yàgg mu tàmbaliwaat wax jékkiwu lu leen ba mu yàgg mu soog a tàmbali wax itam naka jekk ni mu nekk xadim azal azal yi noonu la meloom yëpp nekk xadim azal yi naka jekk day wax te du wax ba mu yàgg mu noppi ay waxam du lu nopp mën a dégg du loo xam ne dafa toggalikoo ci ay xaraf ak i lettre bu ko nit doon dégg cëram yépp a koy dégg ak deram ak lépp lu na ci moom lépp a koy déggandoo du ko féete benn we- benn boor du ko féete kaw wala suuf wala ndeyjoor wala càmmoñ wala penk wala sow wala kanam wala gannaaw du ko féete fenn fépp la koy féete te bi nga xam ne Moussa alayhi salaatu wasalaam laaj nañ ko bi nga déggee waxe suñu borom na mu mel mu ne mënuma leen ko wax waaye pour ngeen am benn idée dënn goo xam ne bu dalee nga dee fukki junni yi dënu yu dalandoo booleeg bànneex ba nga xam ne kenn mënu la xalaat lu neexee noonu noonu la mel wala yàlla may kat ndax lépp luy bànneex daf ci ànd bànneexu bët bànneexu lam lekk ñam bànneexu naan bànneexu nopp bànneexu lépp loo xam ne ni luy bànneex rek ci doomu aadama ci misaal ak loo xam ne ni doomu aadama xalaat koo xajul ci doomu aadama wala mënu la doomu aadama mënu koo dégg koo genn anam mën koo dégg yëpp yëpp ci ànd boobu yëpp ñëw ndoor du xaj ci doomu aadama bi day daal di faatu fi saa si muy mooy kalaamun boobu muy wax nag waxam jooju nga xam ne tàmbalewul fenn te du yemul fenn te du nopp ba mu yàgg mu wax te da nekkul murakkab min xurufin aw kalimatin dégg nga jàll màgg na an xasrul fikar wala takku xalaat xalaat mënul takk suñu borom suñu borom mu féete kaw loolu bien au-dessus de ça ba kaw nu ak nekkam idan xam nga waxoon nañu sifaat sifaatu nafsiya ak sifaatu nafsi léegi jóge nañ ci yi ñu ngi dugg ci gis nga sami an nga xam ne moo déggale sam an ak jëm mu ne suma wakkaw nuhu ak nekkam ay dan moom suñu borom bokk na ci li ñu war a fas bokk na ci sarti uluhiya sami an mu nekk di aji dégg wa basiran nekk di aji gis wa mutakalliman nekk di aji xam mu dellu ci asam wal basar wal kalaam mutakalim mu dee aji wax bi maa ca la nga xam ne jëjur aji yeewalam moom suñu borom bii ca loolu maanaam ci na mu yelle ci moom rek tabaraka wa taala jalla jalaaluhu wa zikr suma rububiyatu aydan taxruju min hadihi sifati adduha waju wa hiya qudratun iradatun kada ilmun xayatun rai daka dalika wa daka wa kawnu bil jiradi qadiran murid wa aliman xayan wa kawnuhu waxid واعدد هنا ايضا شروع الفاعل ثمانيه عند ثمه العقل اي قدره اراده علما حياه كونه قادر كل ممكنة كونه إذا مريدا عالما وكونه حيا تعالى دائما ثم الربوبية جيل من شيء الصفات الألوهية صفات الربوبية mu ne aydan moom itam taxaw bi dana génn min xam ne sifaat yi di aji bokk ci yi lay melo adduhaa juróom waju ñett la doon benn ñu naan juróom-ñett nga ne ko yan la wax nga lim bi wax ma sifaat yooyu mu ne la waxee ñoom qudratul mooy kàttan yoo xam ne amul fu mu yem amul fu mu jubluwul tam lépp la suñu borom yi amul mustaxil iraadatul ak na mel lépp lu am rek moo ko mën ba ci xef ba mu araf même bu liwee di lox lox bu ci nekk suñu borom daf ko nam te daanaka noonu ay mun xam-xam boo xam ne dara feccu ci lépp la xam xayaatin ak dund bu ñu xam ne gii tàmbaliwul te du yemee te niroowul ak dund bu bindee fi te kenn xamul lu mu doon day ak dund lañ ko mën a tuddee ca na mu yàlla ci moom raa i sàmmonte la zalika loolu le wa za ak lii bu kaw zil jalaali kon mu dellu ca qudratu mu indi qaadiran bu kaw zil jalaali nekk borom màgg gi te mooy suñu borom azza wa jalla qaadiran di aji man lépp muridan di aji nam lépp lu am wa aaliman te di aji xam lépp lu am ak lu war a am ak lu am lu warul a am xayyan di aji dund wa kaw nu ak nekkam waxidan di kenn rek mu ne wa am mën nga limaale huna fii ay dalil shuruul faili tàbbik ay jëf ji maanaam ismu fail bi samaaniyeen mu di juróom ñett inde sanu fi fas imam salusi al ahkam fi laaj xalla dana ko limal ma juróom ñett yooyu mu ne ay qudratan iradatan ilmun xayaat kawnuhu yaatu kawnuhu qaadira kulli mumkinat ay qudratan qudra irada ilm xayaat bu ko defee ñeent yooyu ñu indi ismu faa'il yi mu daal di nekk juróom-ñett mooy wakkaw nu ko nekkan xaadiran mu dule ci qudra xaadira kulli mumkin wakkaw nu aydan muridan mu dule ci irada aaliman mu dule ci ilm wakkaw nu ak nekkam xayyan di ajdin mu dule ci alxayaat taala est-ce que dégg nga bu baax da ngeen ko jàppale ci lu muy bëgg a ñëw bu mu duggee si jafe-jafe yi daf leen di delloo si ci ما الصفات لكمال الله فعددت ستا بالاستواه وهي سمع بصر ثم كلام مع التي تلازمت عند الإمام ما الصفات مع الملو ييغا خامنا لكمال الله غير ماتو سون بروم لا ملوي كمال غي فعددت لي مي فت نكو ستا مودي جوروم من بالاستواه سي مودول لنت خمغا ييغا خامنا pour mu nek rab yi nga xam ne moo nekkoon pour uluhiya bu amul dootu mën a nekk ilaa yi nga xam ne pour rububiya bu amul dootu nekk rab yi nga xam nag mu nekk kaamil mooy lii muy wax ci ñaari bay ci yi mu ni waxee ñoom samun ak dégg ma masalam suñu jëlee exemple bi nit nit ki même bu texee nit la bu dul gis bu gumbaa nit la bu mënul a wax moomu nit la waaye nag pour mu mat nit ku sotti ku mat faaw muy dégg di gis di wax mu ne waxi moom samu moo di dégg basarum gis su ma kalaamam topp mu wax ma àllëg yi ànd ak ñi nga xam ne talaasama taqoo naa ñoom mooy yàlla ndelimaan voilà sami basir ñu continué de dem parce que fi mu tax àllaqi sifaat yi léegi nag noo ngi jàng sifa yooyu ñu wees yëpp bu ci nekk am na ajuwaay ci lan nga aju fu mu aju fan yooyu xanaa lii lu jëm de lu si bari mbari ma ne fii lu jëm ba léegi dana fi ñu jëm waaw
sifaat yi day nay xanaa ñu dagg ko ci biir ba tey waaw dana koy bari waaw dana kii de bismillah mu ne yaalam bi anna kulla di sifaati laha taalluqun siwa alxayaati وهي على ما نقله واردا وطلب الصفة أمرا زائدا من بعد ما ثبت في محلها فاحفظ تعلق الصفات كلها قدرته ثم الإرادة معه تعلق بالممكنات معه يوم دين دين كوي موكل دين كوي خم باخ باخ رك. والممكنات قد أتت قسمين موجودها والعكس دون مين فالممكن الموجود حي- جيما قسم ماض وآت ثم حال علما كمثل الأجداد وكالأبناء وكقدورنا بلا خفاء وكالسماء والأراضي والأرض والعرش والكرسي لا تنفع قسم قلنا. والممكن المعدوم أيضا قد قسم ثلاثة الأقسام عند من علم إيمان كافر وكفر مسلم ثالثها الولد من ذي العقبة ومثل القسمين في التوفيق بأبي جهل وكالصديق لأنه جل على ذي قدر ثم أراد كونها عن الأفراد والعلم كلام مؤلف يا نبي بواجب وجاج صحيح وسمى البصر قد تعلق بكل موجود كلام احتقى وقسم الموجود إلى قسمين القديم والعكس دون منه أما القديم فكذلك والصفات له أسماء كذا قال الثقات حادثه ثلاثة ماض وآت بينهما حال كأرض ونبات حقيقة العلم وقلب السلف صفة ak bu see jafe-jafe yi sax kii dafa ko jàng mu ne mu ne dam xamal bi am na kulle di sifaat ne kay lii melo yëpp daal bu ci nekk laxaa ñeel na ko te àndoxam ak aju si wal xayaat dul al xayaat dund dund moom ajuwul ci dara xam nga buñ nee dégg nga dégg aju na ci wax ndax wax ngay dégg dundoo dégg du dul bruit bi daal dégg daal bu ñu ko waxee rek lu yëngu ci la aju naka noonu gis ci lu jëmm du teew ci la gis aju dund nag ajuwul ci leen dund rek dundoo ci kaw ci dundloo dund gi nekkul ci kaw dara lu yaa ngi dund rek mu ni kon bu ci nekk rek bu dul xayaatu rek am na dund am na aju mu ni waxee ñoom waa alama ci la nga xam ne naqaloo toxal nañ ko waa dundul ajuroot kon neel talabu sifati mooy sàkku aw melo am ran mbir zaidam di aju dalli dolli ko boo nee samiatu xam nañ ne melaw dégg ngi ci yow waaye dañ ne daañu ne loo dégg talabu sifaat amran zaidan nga ne nangam laa dégg dama dégg ay ay jàng kon jàngee mbir mu leen mu dolli ko la mu bokkul ci saw melo bopp waaye saw melo bopp moo la ko may moo la may nga dégg ko dégg nga mu ni min baadi ma sabata gannaaw ba mu saxee fi mahalliyaa ci bérébam ba noppi bi nga xamee ne dégg gi am nga nopp di dégg mu sax ci sa jëm ba noppi ñun daañu la laaj ne ko lu ci dolli ko su mooy la nga dégg lan la faxfas mu ne kon na nga wattu taalluqa sifaati aju melo yi kulliha yëpp melo bu ci nekk na nga wattu na nga mokkal fa mu aju ba xam ko bu njëkk laajee nga ne ko gaawal wax mu ne qudratuhu kattan gi su ma iraadatu ak nameel gi ma an boole seen ñoom ñaar taallaqa aju nañu bil mumkinaati ci way jàpp ne li mën a nekk mooy xaadis bindeef mooy mumkin lu jàpp ne lu mën a nekk ñàkk mën a ñàkk a nekk itam bindeef moo gis rek mën na am mën na ñàkk bu mu amee suñu borom nameel gi mu namm mu aju ci bindeef gi ba noppi man gi mu ko mën muy xudra ak iraada mooy daje nit ki soog a am li mu bind di soog a am faw namm naa bind géej bu ñu ko namee iraada am na waaye bu ko namee te mënu ko géej du am mu mën ko ba noppi bu ko mënee itam te namm ko géej du am mu mën ko namm ko géej dal di am ñoom ñaar moo tax ñoo bokk ajuwaay lépp lu mën a am lépp lu xam ne am na te mënoon naa ñàkk nga xam ne suñu borom ci coobareem la ko amal xudra ak iraada ñoo ci aju parce que dégg ngeen mu ne wal mumkinaatu mbindeef yi xat xatat dikk na ismay na xam nga duñ ko ne iraada ak xudra mi ngi aju ci mbindeef yi mbindeef yi nga xam ne jaayis rek la ñu nekkuñu lu mun la ñàkk waaye nekk ñu lu mënu la am ba yàlla amal ko mun nag ñaari xaaj la mawjuduha lu ñu fekkam wala ak ak safaan ko li am ak li amul buñ ne buñ ne ceerno am yow ku ko am ñu ne nag léegi nit ko am fukki loxo ak juróom-ñetti bët amul waaye mumkin la mën na am kon nag mumkin maanaam mbindeef ñaari xaaj la bi am ak bi amul te mën a am mafhum am ba pare di bindee.
waaw am ba pare ak bi nga xam ne mën na am waaye amul waaye lu mën a am la xamuñu itam gën a am nañu ndax bu soobee yàlla mu amal ko bu ci bëgg iraada ajow mu am day daal di nekk mu ne fal mumkinul mawjudu mumkin maanaam mbindeef bi nga xam ne mu am la aussi moom it séddale na ko jéeman muy ñett maadin wa aatin suma xaal mbindeef ñu mën a am te am benn mu amoon bu yàgg ba dem gisatuñ ko gisuñu ko bu ñëwee ak mi am léegi teew di dund nii ak bi nga xam ne day am ite amagul ni ki ñu juddoo comme suñu maam ya ak nun ak suñuy si taataata kon mumkinul moo jur ñetti xaaj li am bu yàgg li am léegi li ami te amagul te dana am moom la misaale que bis la daal di ki maam ya muy mu misaal maadin wakal abnaay ak a doom yi muy tamit muy misaal dégg nga li ñëwagul waka xuduuri naa ak teew suñu mu misaal lu mun bi la xafaay
wakka samaa yi mu ngi demee nekk asamaan mu ngi am wal araadi ak suuf yi wal xalam ak xalima ga suñu borom bind tabaraka wa taala ci àlluwa ji loolu ko wal arsh ak aras wal kursi ak kursi laata sa bu fàtte al qasam xaaj yooyu nga ne ko misaal nga ma al mumkinul mawjud ba xam naa ko léegi dama lay déglu nga misaal ma al mumkinul maadum li mën a am te di lu ñu ñàkk maanaam amul mu ne la wal mumkinul maadumu aydan qad qasim salaasata al aqsaam inda man alim wal mumkinu bindeef maanaam li mën a am al maadumu te muy lu ñu ñàkk maanaam te amul li mën a am te amul moom itam ay danday qad qasima séddaléef na ko salaasata al aqsaami ñetti xaaj inda man alim parce que ko xam nga ne ko lan ak lan li mën a am te amul te ñu xam mu leer nañu du am lu mu doon mun la imaanu kaafir bi nga ma yéefar bi abu jahl firawna haamaana qaaroon parce que lu mënoon am la te amul wa kufur muslimin kéefaru jullit bi jullit bi gëm ba dee ci gëm suñu borom mënoon na mënoon na mu nekk yéefar waaye suñu borom na mu ko kéefar boo ko amul kon nga xam ne iraada ba tey ajuwu ci dégg nga saali soo aju ñetteelam al waladu doom min dox mi ci ku sama jëll beer lañ ko wax mooy koo xam ne du jaasir lu jaasir waaw du jaasir pour pour doomam lu mën a nekk la waaye amul mu ne wa masala qismayni bi tawfiq bi ko abi jahl bi ko siddiq mu ne wa masala misaal na al qismayni ñaari xaaj yooyu mooy imaanu kafir mu ko fi muslim yi bu tawfiq ki nga xam ne réussir na bu baax ci misaal ko ci misaal mi misaal ko bi ko abi jahl ci demee ne que abu jahl mooy amar ibn hisham bu ko siddiq ak sidna abu bakar siddiq radiyallahu anhu masalan ngëmu abu jahl lu jàpp ni la mumkin la waaye mahdum naka noonu kufru loolu li annahu jàlla ala zi qadra mu ne li annahu rek suñu borom jàlla màgg na qadra aji mën na mën na ala zi kooku mënoon def la su ma araa toog mun na mën a kaw na ak nekkam an laa tura bu gisee ko ko maanaam lu muy mu am dafa bëgg mu bañ a am wala ilma wal kalaama allaq yaa nabil bi waajibin wa jaizin wa mustahil mu ne wa allaq na nga aj yaa nabil yow aji xellu ji na nga xaj aj al ilma xam-xam wal kalaama ak wax dégg nga di nañ ko aj bi waajibin ci lu mun la ñàkk wa jaaizin ak lu mën a am mën a ñàkk wa mustahil ak lu mun la am mukk waajib mooy lu war mooy lu mun la ñàkk nécessaire wa jaaizin mooy loo xam ne lu mën a nekk la mën a bañ a nekk te mustahil mooy loo xam ne leer na lu mun nekk kon xam-xam ak wax dana aju ci lu mun la ñàkk luy am te mooy am ak suñu borom bi te ko taal moom rek ay waajib wa jaaiz li mën a nekk mooy amul mbindeef yi moom it xam-xam ak wax aju na ci xam maanaam suñu borom xam na ko te wax na ko nee na kun mu am dégg nga kon xam-xam ak wax aju nañ ci ñett ñett yi mooy alwaajib wal jaiz wal mustahil est-ce que dégg ngeen bu baax a baax waajib xam nga ne suñu borom xam na ko xam na jaiz xam na mustahil wal kalaam suñu borom wax na ko waajib wax na jaiz wax na mustahil والسمع والبصر قد تعلقا بكل موجود لنا من حققا والسمع ديغ نك موم والبصر اك غيس موم قد تعلقا اجنا نيوم ñaar بكل موجود ci lepp lu am la damal حققا lepp lu am rek sun borom deg nako gis nako kon السمع ak البصر ñoom aju nañ ci lepp lu am rek lepp lu am وقسموا الموجود لقسمين لقدم العقل منه من وقسموا سيدل نانيو الموجود لو ام lil qismayni ci ñaari xaaj lu am ñaari xaaj la li am nga ne ko lan ak lan ban xam mu ne bii xiddamin bi nga xam ne amul fu mu tàmbalee te mooy suñu borom wala ak ak safaanam mooy bi am fu mu tàmbalee te moom bindee fii li fi suñu borom bind asamaan si suuf si nit ñi rab yi garab yi géej yi biddew yi weer yi jant bi ila axiri ila axiri أما القديم من لك المثال أما القديم فكالذات والصفات له أسماع كذا قال الثقات أما القديم دال لي خا مو أم تأمل فم تامبلي mu fa gëddaat ñu ngi leen jëmli suñu borom tabaraka wa taala l'essence de Dieu wa sifaat ak i meloom dafa ñeel ko wa asmaun ak i turam ndax amul lenn loo xam ne lu sosulam mu di ay meloom mu di ay turam mu di jëmmam parce que daanaka lu taala waxat ak di xaadisuhu salaasatu noodin wa aat baynahuma xaalum ka ardin wa nabaat xaadisuhu li nga xam ne nag dafa sosu ci mawjud salaasatu moomin ñetti xaaj la maadin li amoon bu yàgg ba paase wa aatin ak li nga xam ne day ñëw te ak si baynahuma seen diggante xaalum mooy lu teew nga ne ko lu teew misaal ma mu nekk ardin naka suuf si war na baat na ak gàncax gi ci sax ak nit ñi gën a nit xaqiqatul ilmi dafa lu nekk salaf si ko ñu ko ñu ko kese xaqiqatul ilmi mu ne ko misaal xam-xam nag lan mooy définition mu ne dëgg dëgg xam-xam xam-xam bi xawli man salaf ci wax ñi wéy sifatu melo la boo xam ne al maalumu lu ñu xam la in kashafa wuññiku na biha ci moom melo woowu ne Allah xam loolu ne léegi li nga xam da nga xam téere bii lii dëgg-dëgg xam-xam mooy melo wu nga meloo ba lii leer te mooy xam-xam ba xam li nekk ci téere bi melo wu nga meloo xam ne dangaa def say entraînement ba àgg ca moo di jàng ba àgg ci xam ko mu nekk ci yow melo melo woowu ci la lii di leere ci la lii leere
kon xam-xam nekk ci téere bi ci yow la ne ci yow la ne alhamdulilah ci yow ci loolu la leere kon yem ko alaaji Cheikh Gassama kii daf ko daan Moustapha Ndiaye alaaji Cheikh Gassama ne mun la nag yii buñ tàmbalee ca awalu hal wujudu suma al qidamu suma al baqaau daa imun lal adamu xaqiq dégg nga loolu lépp suma muxaalifatuhu suma qiyaamuhu bi nafsihi yooyu yëpp de yéen a ngi leen takk ba muy juróom-benn juróom-benn yooyu nag mu ne bi ci njëkk sifatu nafsiya la te mooy waxdaaniya xam nga waxdaaniya dañu ko wax fi mu ne awaluha al wujud mooy al wujud ismulu la nafsiya mu ne nafsiya la wujud moom wujud boobu mu sifatu nafsiya yéen a ngi koy gis ne mu ne waxiya maanaam juróom yi juróom-benn yi al wujudu su ma xam sa juróom yi nga xam ne ak dëkk nañu bari yooyu moom salbiya ni ki tey bi mu ne al wujudu alqidamu salbiya la ndax dafay alxudus lay lay récci moom lay dàq bu dem dégg nga su ma baqaawul baqaaw itam salbiya la ndax dafay dàq alfanaaw yàlla du jeex du fi jóge mukk kon day wéy ba faaw kon dàq na ak wàññiku lépp luy mën a wàññiku te mooy seen safaan daa imul lal adamu xaqiqatul baqaay salbul adam mu ngi koy wax sax mu ne baqaaw sël sëlbiya la ndax dafay dàq ak ñàkk boo xam ne yàlla xaq ko dana yéeg ko dégg nga dana yéeg lil wujudi indal xakam mu xaalifatuhu taala li kulli haadisin mu ne wa xadduwaa salabul jirmiya wuuteeg gi mu wuuteeg bindee fii moom suñu borom tabaraka wa taala buñ ko dee définir dañu ne mooy rékki gi muy rékki ak jëmm yaram bi ñu mën a làmb wala ñu mën ko daj wala ñu mën ko fóon xam ko wala ñu mën koo gis loolu mooy jirmu kon nga xam ne zaatu tekkiwul jirmu zaatu mën na am te jirmu di am ni ko zaatullaahi am na waaye laaw suñu borom
mu wuteeg xawaadis yi ci la commencé est ce que dégg ngeen ko waaw mu ne wax adduwaa maanaam définition wu moom mu xaalifatu ñun xawaadis yi kon neel salabul jirmiya muy rëcc bi muy rëcc ay jirmiya c'est-à-dire maanaam amul jirmi moom suñu borom maa xusuufiha ànd ak yi ba nga xam ne dafa jamoo jirmi yi nga xam ne bu jirmi amee rek yooyu yëpp am te yëpp dàq na ko kasaanaka nag al al arabiya ba tey al arabiya lay def mën na ko jox dégg nga heure bu mooy aw der li ñu mën a ŋaañ ñi ñu ku ñu mën a ŋaañ ñi ci nit wala ku ñu mën a rafetal dégg nga arab ya nag mooy lépp luy gaar loo xam ne ñii amul istiqlaal moom ci jëmm mu ne sum toog su ma fi am woo toog taxaw bi mu taxaw bi nekk ci maanaam autosuffisance am abad fawu mu mba abduna bokk na ci lenn te nga xam ne waa jaba war na seex sama ci ak suñu borom tabaraka wa taala nga ne ko loolu lu mu mu ne ay lam nekk nekk lu tax di aji aajo wa ila mahallin ci benn bërëb waaye ñu jànguñu ko woon jàngoon nañ ko waaw ku ñuy tàmbalee ah xam nga li ngeen ma dundee si waat fii moom a gis bu ñu ci ñoom ñoom ah kay xamu na fan xëy na man fii laa tàmm naa wax dégg nga waxi ñoom al wujud mooy te mooy juróom benni melo yi nga xam ne benn ñu ne wujud mooy boobu day nekk gannaaw bu wujud yooyu rek xam ko tam juróom yoo xam ne xam ko mu bari ci gannaaw wujud boobu yoo xam ne salbiye la ñu mooy yi ñu weesu waat moom la ak buñ ba tey kooku waaw loolu fu mu ne ah ñeneen booy sonal kon nag gis nga waxoon nañu kon ak ci kaa ci kaa ci maanaam yi ak ci kaa ci maanaam yi ñooñu dañu kon sàqal ci jëmm suñu borom tabaraka wa taala maanaam kudra bi ñu ko laajee jëmm suñu borom mu daal di nekk xaajal ni mu waxee woon ne melo yooyu bu dikkee ci bërëb daf koy fàggul leneen maanaam bu bees mooy ab xaadir xudra bu dikkee ci jëmm daf koy def xaadir bopp bi xam ngeen lan moom fàggul maanaam mu ne awalu xaanam njaal jéenu melo yooyu ak bokk na ci yëwaar ci suñu borom ci melo yooyu wat iraadatu ak nammeel lépp loo gis mu am suñu borom namm na ko amul dara loo xam ne dafay am te fekk yëgu ko wala namm ko woon wala rëcc ci la wala daf koo faalewul rek mu am lu mu rek lu mu doon rek doon ko fekk nit nit kon nag diglu ko sàkkal ko waxtu war a am jamono bu muy ami mu ngi ci téere di dund yëre yëre yëpp wal xayaatu ak dund suñu borom dund ngir mën a wax ak bindee bi suñu borom tànn làmmiñu arab di wax ak ñoom ci arab kon baat yi ñu wax yëpp baati arab lay mën a doon danañu tegtal rek la ca kem luñ ca mën a xam waaye niróowu dara ni muy misaale xéewali àjjana di ñu wax ay soow ay lem ay sàngar daf fekk ci ñu ci li ñu xam rek mu ci wax ak ñu waaye xéewali àjjana niróowu rek ñu ci àddina ñu naka noonu kon bu ñu dee jàng taw mu ne nag kon alxayaat yi dafa wuteeg dund li leneen di dul yàlla di dund ndax dund bu dul dee mukk te tàmbaliwu fenn la mu ne li méngoo la al ibaada te jaamu yàlla tax koo ko wa samu ak dégg boo xam ne wuute na ak déggu leneen lu dul yàlla foofu itam la mu'tazila yi la leen ahlu sunnati dàqee pour ñoom dégg gi suñu borom di dégg nekkul lu mel ne doomu aadama bi cëram yëpp mat mu am na bu dégg nopp di ko dégg nga xam ne nopp bi mënoon na dañ mu bañ a dégg te du tee mu mat pour ñoom maanaam ci béréb bi ci la loolu yëpp àndandoo maanaam boo liggéey ñu ne anu sina sa samiun bi samain basirun bi basarin maanaam dañu saxal ne suñu borom am na dégg am na gis donte wutal na ko ñun mu'tazile yi nag loolu la ñu dàq moom maanaam pour ñoom jëmm ji mooy dégg di gis di lépp est-ce que comme maanaam ngeen sew na wal kalaamu ak wax suñu borom wax bokk na ci ay meloom day wax te du noppi ba mu yàgg mu tàmbaliwaat di wax te ak waxam d'après ahlu sunnati ñi ci ashari yoone yi ñoom waxam nekkul ay ay ay xaraf ak i baat nekkul lu ñu mën a bind nekkul loo xam ne it nopp moo koy dégg waaye bu la yàlla mayoon nga di ko dégg sa yaram yëpp di koy déggaloo du la féete genn wet fépp la lay féete am na nag ba tey ci xanaa bi lay ñoo xam ne nee ñu wax ji ay baat la ak i xorof parce que xaraf ahlu sunnati yi d'accord nañ ci ñi ci ëpp jumhur ahlu sunnati daal ci ne xaraf qadim la dante lii la suñu borom wàcc la waaye du ñu bind kon dañ ko booleeg alquran te kon quran maanaam xam nga dañ ne wa anna alquran ak kalaamullahi laysa masluq alquran da nga xam ne mooy wax da nga xam ne melaw suñu borom nga xam ne jiinu jàng daf ñu koy tegtal jooje dañu ne du ay xaraf ak i baat te du mu lu ñu bind al muqtatil ahlu sunnat nag xanaa bi lay ñoom saxal nañu ne wax suñu borom ay xaraf ak i baat la waaye nag ay mbir gi ci biir yu doy waar ci jumhóor ahlu sunnat daal li ñu d'accord waxi suñu borom du ay xaraf ay baat du duñu mën a bind wa baadu gannaaw bu yooyu weesoo te mooy sifaatul maani yi nga xam ne ay maanaa la te mooy yi ñuy wax ma maanawiyatun ay sifa yoo xam ne maanawiyat te mooy ak sifaatul maanawiya turam bu def na sàkku ko est-ce que dégg ngeen ko mu ne nga ne ko yooyu ñu yan mu ne wax yi ñoom kawnullaahi mooy nekk suñu borom qaadiran xam nga qudratu maanaa la bokk na ci sifaatul maani al qaadiru nag sifatun maanawiyatun qaimun qaimatun bi bi zaatihi tabaraka wa taala yooyu mu kawnullaahi muy nekk suñu borom qaadiran di aji attan muridan di aji nam mu duggee ci iradatu wa aliman di aji xam mu duggee ci ilmu xayyan di aji mu duggee ci xayaat samian mu duggee ci samu yaa murid yow aji nam ma ji jëm ci yàlla wa kawnuhu ak nekkam itam subhaanahu seeda naa sellam basiran di aji gis mu duggee ci basaru wa mutakalliman di aji wax mu duggee ci alkalaamu fasal laajal xabiran aji xam mu ni wax nga ne mel dama ne ko rek léegi misaal na sifaatul maani yooyu ma maanaa yooyu ñooy lan ak lan mu bu ci nekk jox ma définition mu ne xadd wa xadd qudratin qudra li nga xam ne moo di définition am la dal la daal fil maarif fas borom xam gi al aalimi ka di aji xam al allaamatu ka di xamaakoon al bahri ka di géeju xam-xam sifatun aw melo la boo xam ne yumkinu dana jàppandee ijaab ak amal ma al li adaami ak ñàkkal li ko li mumkinu ñeen lépp bindeef lépp lu am mi ne lanaa mi ci bindeef yi nga ne ko bu nga ko ne wax qudratu mooy lan mu ne la définition daal mooy melo la woo xam ne ki mu nekk ci moom day mën a amal la ko soob mën a ñàkkal la ko soob bu ko neexee diw am bu ko neexee diw ñàkk bu ko neexee diw bañ a am ba faw sax ca ñàkkam nga mu nekkoon mu wéy ca ba abadan bu ko neexee ñàkkam nga mu doon ñàkk mu jëlee ko ca amal ko muy aji am ba mu neex ko mu ñàkkal ko mu dellu ñàkkati ñàkk mu wuuteeg ba mu ñàkkam bu njëkk ba woon kooku mooy xudra boo xam ne dana jàpp ni ak amalam ak ak ñàkkal mépp mbindeef bi xaa ci melo woowu la ala wifqil iraada mu dëppoon nag na mu ko nammee na mu ko nammee mu ni fadaa lii day lam yax wi làqu ko amu ko si waa ilaahina ku dul suñu borom bi pësan jàpp ko mu ne suñu borom dong nga am woowu mel mu xudra ndax xudra goo xam ne aj su du du ko du ko gane mukk amul dara lu mu xam ne lott na ca bu ñu dee wax mustahil ak mumkin alwaajib ci àtte xel ci àdduna bi waaye pour suñu borom mustahil amul amul dara lu mustahil mu ni kon xaddul iraadati wax na qudra mu ngi jëm ci iraada mu ne définition iraada fa wasfun aw melo la woo xam ne yumkinu dana jàppandi maanaam bi ci moom ca kanam taxsiis mumkinin jagleel bindeef lenn ci ay melo wala ci béréb wala ci nekkin wala ci meloon mu jagleel ko ko ca yaafatan yow aji xel ji fii baax bi ma ci lenn ca yi nga xam ne yee jur dana dagan yii mën a nekk la te nga ne ko yii mën a nekk ci mbindeef yëpp lan ak yan la bu ñu wee ñoom sitatu juróom-benn lañu te taabale yoo xam ne jàkkaarloo nag fili atibaar ci bu ñu ko dee xalam ak sitte yeneen juróom-benn nga ne ko yooyu yi nga xam ne lu jàpp ni la mën a nekk ci mbindeef di ko jagleel te muy juróom-benn te mu jàkkaarloo yeneen juróom-benn yoo xam ne bu yi saxee yii dàqu bu yi dàqoo yii sax yan la mu ne waxee ñoom lu jóodul moo dig am jaaisun bu di aji dagan mustabdilan boo xam ne ji bu ñu wattoolee min adamin ci ñàkk mu jawwusun bu di bu ñu daganal falta axtalaa xellul ak am boo xam ne niróowul ak am ak suñu borom gi ndax am gii jaaisun aji jàppandi la aji mën a nekk la mustabdalan ñu watte ko min adamin ci ñàkk diw sàngam mënoon naa am mën naa ñàkk kon am gi ak ñàkk yépp ñaari mumkin lañu yoo xam ne ñoo yem képp dara lëngu ci borom la amul dara lu war a saxal am gi amul amul dara lu mën a saxal lu war a saxal ñàkk gi bàyyi am gi amul dara lu war a saxal ñu am gi bàyyi ñàkk nga xam ne ak am ak ñàkkam ñoo am képp suñ borom nag kon ñaara ngoo xam nga ñaar buñ tànnee jagleel nga ndax génne nga nii jagleel ci nii ama am googu ak ñàkk gi war a am suñ borom tànn am gi amal ko nga xam ne kon tànn na benn ci ñaar ñu kon bi benn bi mu tànn mooy am gi ñàkk nekk fee toog dana wañ ñi am yooyu yu mel ne am yu mu tànn ak yem ko fa bàyyi ba muy juróom benn muy juróom benn yu jàkkaarloog juróom benn kon am su teewee suñ ko taxawalee ñàkk ne fee benn ngoog buñ dikkee ci dund dund am dee am ba ba ci melo yooyu bu ci nekk am safaan juróom benn lay doon yoo xam ne mu ngi safaanoo maanaam mu ngi jàkkaarloog yeneen juróom benn waaw mun nag loolu maanaam yooyu nga xam dañoo jàppaar loolu xam ne dañuy mën a am mën a waaw ñàkk.
waaw ndax kii ndax nit mën naa dégg mën a dégg ni maanaam loolu ñu imposé wu rek ñu taxaw ni yoo xam ne suñu ba mu ko teewal a tànn wala boog yàlla moom mooy teewal yooyu tànn ca la ko neex boo déggee tànn rek imposition amatul imposé waaw wujjóob amatul nécessité amatul kon lan moo am bu doon doomu aadama dañ naan fantaisie la pure fantaisie pure fantaisie waaye bu dee suñu borom ixtiyaar tiyaar daf ko tànn rek mu sopp ko mu sotti
nga xam ne dara nekkal ko ci mu tànn am geeg mu tànn ñàkk gi ñu am ci moom amu ci lu ko ci jëriñ dara amul benn service bu mu koy rendre amul lu mu koy wàññi amul lu mu koy jëriñ kon pure tànn la maanaam ci digg bu gàtt waaw.
dañu mën a jàpp ne xam nga nit doomu aadama su dee tànn ci ñaar day ñaar yu imposé wu ci dara doomu aadama moo tax nag waaw loolu.
nga xam ni mbir yi dañoo teew ci waaw.
kanam nii waaw.
ñu mën cee tànn lenn waaye ba muy tànn it xam nga tànn bu ñu limité la ndax léegi ñaar yi rek ci la war a tànn waaw wuti nag tànn goo xam ne bu la neexoon tànn leneen Leneen.
waaw waaye tànn gi ñaar la ciy tànn waaye am na liberté fab bi ko ci neex bu ko neex waaye nag sañu la bañ a tànn benn mënu leen a génn kooku ci doomu aadama la am doomu aadama waaye du ci suñu borom tabaraka wa taala waaw xam nga ñu waxoon ne mustaxil amul ci biir ci suñu borom loolu même bu ko xel nanguwul mu ne waxee wujudun wujudun moo di am jaayidun boo xam ne lu mën a nekk la mustabdalan ñu watte ko suñu borom watte ko min adamin ci ñàkk dégg nga mu jawwatin guddi gu ñu daganal maanaam guddi gu mën a am itam ñàkk gi mën a am mën a ñàkk am gi mën a am mën a ñàkk bal baaxee la xel yi mu ne waxaa ko daanaka noonu miqdaaruhu kemam nit ki bu dee nit bu dee fas bu dee lu mu doon na mu war a toll réyaayam guddaayam sewaayam dijjaayam talaayam woyofaayam yaatuwaayam xataayam lépp daf koy tànn ñaar lay doon wala ñaa yi bari bu tànn ca leen tànn naa naa bind diw bañ a wa ba- bu ñàkk goon dàq naa ko diw bu ma ko bindee na muy toll ci guddaay bu ma tànnee gudd pëcc naa fi gàtt bu ma tànnee baax wacc naa fi bon bu ma tànnee rëy wacc naa fi tuuti bu ma tànnee lu ma tànn rek wacc naa damaa tànn lenn ci yeneen yoo xam ne dafa lay wan ne yooyu yëpp lu ci ne lu mën a nekk la lu suñu borom mënoon a def ci bu ko soobee mu tànn ci la ko soob mooy wujudun jaay si mustabdalan min adamin mu jago waa ka daal muqdaaruhu maxsuusu na mu war a toll itam mu jagleel ko min si wax ci keneen mu bañ a tolloo diw diw mu tànn mu rëy diw mu tànn mu sew diw mu tànn mu gàtt diw mu tànn mu min si waaw min saa iri miqdaarin ci mboolem kam yi war a am maanaam mboolem volume yi war a am rëyaay yi guddaay yëpp mu tànnal ci diw nam bëgg mu mel nga xam ne kon diw am nañu ko sut am nañu mu sut am nañu ko gën a jub gën am nañu mu gën a jub gën am na ñu mu gën a yaatu am na ñu ko gën a yaatu am na ñu mu gën a sew lépp daal melo yu bare bare mu tànn ca pour diw ya ko nekk ci nekk dajale ko est-ce que dégg ngeen mooy waxaat daanaka ni miqdaaru boo kemam al maxsuus ba di mu jagleel min si waaw ko ci keneen min saa ir miqdaarin ci mboolemi kem yi mu am yi yi nga xam ne xel na moom yi mën a nekk yëpp daal su keneen boo xam ne nit na ko wa sifatu ak melo maxsuus ba di mu jagleel mustabdalatin woo xam ne dañ koo watte an saa ir sifaat si mboolem melo yëpp su borom melo yi mu la melal daf koo tànn ci mboolem melo yi yi nga xam ne yu ko sifat yu war a mën a xam ne yëpp mu tànn ci benn tànnal la ko melal la moom fa ak la xel wa zaman ak jamono al maxsuus ba di mu jagleel tànn na ne buñ demee ba ci siècle nangam ci weer nangam ci bis sangam ci heure sangam ci minute sangam ci seconde sangam la diw di diw yooyu yëpp daf ko tànn ci biir ay millénaire tànnaat ci biir millénaires yi ay siècle tànnaat ci biir siècle yi ay décennie tànnaat ci biir décennie yooyu ay mois ay ay ay ay at ay tànn ci ay ay weer tànnaat ci ay bis tànn ci ba ba muy àgg ci seconde fraction seconde bu mu li mu bëgg mu am ci ci jamono boobu du ko weesu du ko jiitu ca la am dégg nga mooy wa zamanul maxsuusu aydan badalan mbir mu di wat an min saayiri lismaani ci mboolem jamono yi passé yëpp suñu borom daf ko wàcc tànn ci benn pour amuk nanga dégg nga noonu mu ko tànnalee fii maa xam jëlaate la feeñ ni ni mu ko tànnalee jamono ci njëram biir njëram jamono yëpp waa kala nag noonu la makaani ku bërëb bu muy am itam dégg nga almaxas ba di ko jagleel min saa yi la mu ko ne ci mu tànn ko ci biir mboolem jamono yi jami an yàqatin nit ki nga xam ne nit ki benn wolof la bëgg mu nekk ko mu mu tànnal ko Sénégal bu ko neexoon mu tànnal ko France muy français wala mu tànnal ko Palestine muy juif wala muy palestinien wala mu tànnal ko Makka wala mu tànnal ko Amérique ni mu ko tànnalee ci bërëb yi tànnale ko ci jamono yi tànnale ko ci melo yi la ko tànnalee ci lépp ba mu mat loolu lépp nag amu ci lenn loo xam ne hasard la am ñuy wax ne la hasard n'existe pas kon yàlla dafa nattali lépp programme yi daal lépp ba ba saa di taxaw ba doomu aadama yi dugg seen kër gannaaw àtte bi ñu leen di àtte kenn ku ci nekk fu nga war a nekk lépp bindoon na ko ba mu jiitu def na ko taqdir ba bind ko ci lawx mahfuz ba noppi si boo diggee ñu naan yàlla noppi na noppi na gi moo di amul suñu borom amul jamono wala béréb kon li ami bis bu saa di taxaw ak la amoon ba passé ak li tey ñoo yem ci moom lépp la tiimaloo kon noppi na mu mel ne ku saraan fi moom pare xam nga liy doxe li muy doxe yëpp rek mu ni xel mën na ko parfaitement gis nga suñ borom gannaaw moom amul lu ñëwagul mu mel na gis na la nga dund ba pare ba mu la sàkkalee dib bii sàkk na ne fas ma yéene kat mu dee ci ndax dana sarax sarax sàngam sarax sàngam dana fanq ak dee wala dana sabab sabab sàngam bu ko defee daañu ko ñaanal ñaan nangam ñaan googu du ma ko nangu kon xamoon na ne waru cee dee ba ne bii itam bu ci accès nangam waroon na ko war a digle waaye am na nangam a ko war a fanq nangam a koy fanq xam na ko ba noppi dogal ko tànn fanq ga dig bii ci laa koy yemale dara mënu koo fanq mu tànn ko ba pare ci mu mel ne yow waaw en tant que musulman xam nga ne sa dig bi mënuloo dee te jëfam boo dee traversé chaussée bi nga seen oto bu gaaw buy ñëw nooy def daw boo dawul woon dee fekk yàlla xam ne ne ci bis bii la ko oto bi rey ndax bu daw na ko rëccal wooyu sabbi doon wa indahu ummul kitaab la kooku mooy lu mu ko bind dootu ko xam mooy al lawhul mahfuus bu ñu ko waxee al mahfuus min al mahwi lu mu ca bind si dootu ko far waaye yeneen alwaaxam fi loolu foofu mooy noonu fekk na nag rek suñu borom dafa xamoon ne yow kat da nga sarxee nangam te kon da nga mujj ci kii waaye xamoon na ne diw sàngam moom bu ca tolloo du sarxe nangam xam na ne digg bi moom ci lay deewee rek.
sax bi daal ak ndaw la rek.
waaw ndaw la bu mu yebal fekk na lépp nag lu mu programme bi la. yow nag ni ngay dawee bu oto bii ñëw noonu lépp loo dégg ñu ne dana guddal fan noonu ko war a sabab loo ñu leen képp. ñu leen képp parce que ni la oto bi nar a reye la la leneen mën a reye oto bi jund min junudillahi junudillahi yi dafa bari dafa yaatu weñ yi ay junudillahi yi si weñ mën na sarax nit ci mu dee. mën na am. pusa mën na jam nit ki mu dee dégg nga ganaar mën na cof nit ki mu dee te loolu yëpp am na am na kon junu dulaa yi kenn xamul nu mu toll lu mën a rey nit lu nekk bu jeex waaye lu ci nekk yàlla programme na ko ci kaw xam na ne nit ki dana def lii fanq day gi waaye bu ko nit ki warul la def ci ni mu xamee nit ki xam ne du ko def xam na ne ci lay dee def ko kon nag boo xamee ne seen oto bi ñëw nga daw wala nga seen gaynde gi nëbbu boo xamee ne loolu dana dana fanq de coobareel yàlla rek ne la ni itam ñaan bi tàllal suñu say loxo wala sarxee ngir ngir fanam gudd dana jël ñooy ñooy rek jot seet ko ci loolu boo dàqee ni rek dàq maanaam kon daal mel na maanaam yëpp bi nga xam ne dafa dafa ñu ci xolam te mu- te mënu ko def it maanaam na mel na mel yàlla waaw waaw lépp lu am rek na melu suñu borom lu am rek na melu suñu borom amul benn lu am par hasard boo déet dégg nga ren li wa jihatu ak wàll maxsusatu nga dugg jagleel ay dana itam badalan mu di wat min saa iri jihaat ci mboolem anam wàll yi inda man naqal parce que nga xam ne dafa ñu ko léegi bu ñu nee léegi lii mooy xatul istiwaa yi dégg nga équateur bi lépp janoob la maanaam sud la bi lépp noor bi dégg nga orient gi nii occident gi nii suñu borom tax mooy ni ma waxoon rek ni mu tànnalee nit ki mu war a judd ci bërëb ni mu ko war a tànnalee ci jamono la ko tànnalee ci bërëb bi mu war a juddoo na mu war a meli awaamil yi maanaam facteur yi nga xam ne ñooy euh, influencé muy yaramu nit ki muy tempérament am li koy conditionné même terroir bi ak lépp noonu la ko suñu borom tànnee ci ni mu nammee nit ki mele ni xam nga li naan l'homme est le produit de son terroir nit ki bu fekkee ne nit ku ñuul la rek am na caractère nit ku ñuul suñu borom ba mu bindee ruu gi tànnal ko béréb xam yi ci jeexital ci moom yëpp ni mu ko bëggee la tànne yi nga xam ne facteurs yi ci joué yëpp ba melal waa ji noonu kon ni mu la tànnale saw melo ni ngay toll bërëb bi jamono bi la tànne itam sa tempérament sa yëpp yëpp saw melo ni ngay mel yëpp loolu bu ko seetee maanaam espèce de déterminisme la te waaye bu ñu ko seetee déterminisme matériel a ngi si scientifique waaye bu ñu seetee ne éducation yar am na influence dañu xam ne déterminisme bi nekkul lu définitif lu ci ci xam-xamu suñu borom. fi ilmillaahi rek. ndax nit ki boo bu la wóoroon ne yar mënu koo modifier personnalité bi kon yar du soxla. kon ba léegi duñu wax yar. volonté itam lu am la. nit ki volonté mën na koo may loo xam ne bu ñëwoon volonté du ko am loolu lépp suñu borom bàyyi na ko ci ci programmation bi li nga xam ne nit moo ko joxe ci volonté ba may ko lii melo yi nga xam ne moom lay meloo ak melo woo mën a woo mën a meloo it am na loo mën laa yukallifu nafsan illaa wus'ahaa am na loo mën li nga mën nag boo ko defu rek ci moom cee kontaan mel na tey léegi sedd bu dafa metti noo ngi nekk ci Union soviétique jamonoy sedd bu gën a metti yow war nga jàpp suba su jàpp yàq war nga jàpp tisbaar bu yàq war nga jàpp takkusaan war nga jàpp timis war nga jàpp gee fekk sa jàpp yàq ne war nga jàppaat ngay koo xam ne mën nga boo dee jàpp boo jàppee suba jàpp tisbaar jàpp takkusaan boo jàppee timis feebar wala doo mën a jàpp nga daal di xam ne yow ndox mu sedd baaxul ci yow nga bañ a jàpp tisbaar li nga mën lépp defuloo ko parce que mën nga ko yàlla nag dana ko xam loolu nag mooy doomu aadama bu ak nu ko yàlla mën a bindee surtout yu mën a joué rek bu laajee suñu borom yey ko ndax lim mën lépp te defu ko lépp laa yu ko def laa yu ko def laa nafsan illaa wus'ahaa foofu la koy jàppee am na loo mën te defu la ko foofu lañ lay condamné kon li nga mën lépp war na ko def.
ndax dafa loolu loolu ndax ndax maanaam nit ki bu reconnaître rek bu reconnaître rek ni li mu mën lépp. gaaral ko moom borom xam nga dëgg dëgg am na lu mu mën a def. yàlla jox na ko ay ay Man-man.
maanaam ay man-man jox na ko ay outils yoo xam ne waaw yëpp def ko en œuvre pour li ko yàlla Pour bind, réaliser ndax yàlla li da ko ko sant.
bindoon ngir jaamu ko Waaw.
jaamu gi mooy cant gi mooy reconnaître màggam mooy Waaw.
xam ko mooy waaxu jëm ci moom waaw loolu nag mu wóor ko ni liñ ci mën lépp liñ ci waroon a mën lépp def yëpp ko ko waaw mu reconnaître loolu ci kanam borom ndax loolu loolu lan dan bu fekkee ne reconnaître na loolu yëpp te àgg buñ ci fi ñuy tëjee bën buntu tuub te mooy fi mu demee ba su sukuraat di commencé àggagul foofu mu nangu loolu lépp tuub tuub ñetti charte yi la am na nga ko regretté na nga ko expliqué trop na nga fas yéene dootoo ko defati mukk loo ci mën dabaatal ko moom bu bu tuub moom bu matalee ñetti charte yi rek suñu borom nangu na tuub boo xamee ne nit ki dem na ba nga xam ne li ko yàlla santoon lépp jëfu ko lim lim ko santoon lim ci mën lépp jëfu ko ah kooku mooy bàkkaar bàkkaar dañ koy tuub daanaka bàkkaar yi boo ko seetee noonu rek la demee di benn génn ko ci lii yàlla tere na la parce que xam na ne mën nga koo bàyyi nga bañ koo bàyyi dem def ko mooy li mu la santoon lépp li nga ci mën lépp defuloo ko waaye su fekkee ne da ngay lutte di lutte bañ koo def bañ koo def ba nga xam ne àgg ci koo xam ne yow mënatoo ko bañ a def boobaa yàlla xam na ko même sharia mën na la condamné te yàlla moom bañ la condamné waaw s'il vous plaît ndax nit kii kii tuub moom li tubaab di wax baatar sa kulp yow de- nangu nga daal sa sa culpabilité daal nangu nga ne daal ne ku ku ku ku dëng nga ku tooñ nga ku jàdd nga ci kanamu yàlla mu des nag léegi réccu ko ba nga xam ne naqari na la trop des itam dafa séyéene ne doo ko defati mukk
li nga ci mën a dabaatal tam nga dabaatal ko ñett yooyu mooy sart bi bu fekkee nag ni nga aussi yéen a dootoo ko defati mukk teewul seytaane mën na la mën ba nga defaat ko loolu du tee ba tey boo tuubatee it waaye nag da fekk bi nga koy wax daal moom fës nga ko yéene tuuba fës nga ko yéene mën nga demati nag ba iblis sànni mbaal bi rek ci nga génn ànd te
am benn benn laaj moo bëgg a laaj.
Hmm? wuti na ndax bii moom bàkkaar lay tuub kooku moom boo ko tuuboon juróom-ñaar fukki yoon bi set yàlla yi waaye waxtu woo tuubee rek dëgg la ci yow yàlla baal la ñee nag dañoo nekk ci lislaam mu yàgg ñu génn ci lislaam nekk nekk kéefër dellu tuubati génnati xam nga ñooñu pratique la boo xam ne ñoom ñoo ko doon def الذين امنوا وجه الله واكفروا اخره امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه الله واكفروا اخره لعلهم يرجعون da ngay ñëwal da nga xam ne bu ay nit ne leen da ngeen di wax ne tuub nañu ngeen tuub ngeen tuubee ba mu yàgg ngeen mbir yi ngeen daal di génn ak ñu leen wax ñu ne mbir yi daal seet nañ ko man tuub naa dugg naa xam naa li ci nekk rek waaye doyul pour daal yàq xolu ñeneen lañ ci jublu waaw dégg nga li la seen xam ne mu jiite ci benn aaya ji benn li la seen amanu amanu bi la seen unzila ala lazina amanu wa jhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un dégg nga wala tabi'u ila liman tabi'a dinakum kooku moom stratégie la boo xam ne moo tax ku tuub boo murtadee ñu war la rey xam nga am na benn table ronde boo xam ne def na Arabie saoudite la woon sax am amoon na ay chrétien ak juif ak ay musulman ñu posé leen question boobu waaye xam naa ne mënuñu ko tontu daal dañ ko kii rek ñu ne leen dañu daal l'islam amul amul tolérance lu tax ku tuub ba noppi te nit ki lii bëri na moo dugaloon boppam ci tuub bi bu bëggee génnaat gisatul lu ko rey bu bëgg génnaat lu tax ñu di ko rey kooku l'islam ne fa tolérance booba li ñu waroon a tontu moo di parce que da nga am tuuma joo xam ne dafa am lu garaaw lu ci nekk boo xam ne principe la boo xam ne bii
génn loolu bu ñuy dugg ah xam
loolu la yaakaar naa nga ñee nag tontu wuñ leen dañ leen tontu bu set bu set spell sàrt bi nga wax man da ngay rëcc ci li nga defoon ci li nga defoon dañuy rëccu moom mu naqari la ba pare bu siiree doo ko defati mukk waaw loo ci mën a dabaat nga dabal fekkee ne nit ñoo daan tooñ ci yóbbu seen alal la li nga xam ne sànkugul wala am nga ko wala am na loo leen fayee nga dem dabaat fay leen wala bu fekkee ne dee nañ nga jox ko ñu leen war a doon wala yu mel noonu daal wala loo yàqoon nga mën koo defaraat loo mën a dabaatal daal li nga yàq waaw ci li nga yàqoon nga def mais est-ce que kooku ba tey mën na sa koo waa ji ki nga xam ne aussi mu ngi góorgóorlu naam waaw mu ngi góorgóorlu sax ci jëf di góorgóorlu waaye ba tey yëg nañu rek li mu waroon a def ñëpp mënu ko mënu
kooku ñëpp kooku martaba la boo xam ne ñëpp ci lañ toll kenn weesu ko ku nekk rek dina doon ci aas boo xam ne maanaam li ñuy wax nii boo boo amee ab sàngam boo ko boo tuba duñ la jëf déedéet amul amul
man damay إنما التوبة على الله المسلمين يقول لك ولا يقول لك أنا أعلم لك وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال يموت فلان ولا الذين يموتون كفار nit ki dem ba nga xam ne mooy li nga wax léegi bu côté ñu ubalee ko buntu tuub foofu ñu ko ubalee buntu tuub bu tuubatee dugg waaye foofu mooy bi mu demee ba nga xam ne dee ak si na nag léegi mooy ni li firaw na defoon bi mu demee ba nga xam ne vraiment adrakoul xaraku qaala amantu annahu laa ilaaha illa allazi aamana bihi banu israil wa ana mina al-muslimiin suñu borom ne ko alaan waqad asayta qablu wa kunta mina al-mufsidiin fa lima najjika fii nga xam ne moom ba léegi bu tuubee mën na fee julli mën na fee woor lu mu mag mag mag mag feebarul ba séeru ne dee ngi ñëw mos naa nga xam ne dañ dikk na ba jub sukuraat xam ne dee ak seen moom bëgg a tuub kooku moom booba nag dañuy ub buntu tuub booba lañu koy ubal moom buntu tuub am na buntu tuub général bu ñuy ubal ñëpp kooku moom bis buñ ci àggee ma jali ñu koy fekk ñoom mooy ñiy texee di buñ demee ba nga xam ne daanaka ku gëm nekkatul ci kaw suuf loolu ñu ngi ci jëm de xam nga loolu tekkiwul ne l'islam dootu am musulman dootu am mais musulman yi seen ngëm yi wàññi ko misaaloon naa ko fi bis di am yu bari yu ñuy weddi di topp tubaab yi di leen nax ñuy dem ba di weddi yu bari ba ba mujj daanaka daal tur wi rek a fi nekk nag bu ñu demee ba nit ñëpp toll foofu nag ñu ëpp ëpp jot yi pour am comme comme dafa am ñu bari ñu fiy nekk dafa am ñoo xam ne dëj ba am na ñu dul ñëw ñoom jaaj yi dëj juróom-ñett fan ah waaw juróomi si yi àll ba la waaw
wàññi comme ñu bari dañ ñoom jur ñi ñëpp dañu naan tey léegi àll ba ñu bàyyi ko Ñu bàyyi ko.
ba dimanche comme gannaaw ñu bon duñ juróom benn nit yoo xam ne su la ñu ñëw te ñu ñëw àll ba waaw waaw est-ce que d'accord ngeen da waaw li nga li nga bëggoon a laaj.
alal bu ñu lay wax dafa li am nga dëj bëgg- li nga fee am loo loo waxoon léegi yu bari dafa dañ ciy bëggoon dem a laaj.
sama laaj bi day yàgg damay bàyyi ba beneen waaw
bu fekkente ne léegi da ngaa amul woon ci koor léegi jóge fi dem fu mel ne Arabie Saoudite nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo jutoo ñaari kii waaw léegi ñoom bu ñu wari da ngay ànd ak ñoom wari da ngay wari boo ñëwee fay bis
boo defoon sax sax bu fekkoon sax saxaan bi la nag ku jóge Arabie Saoudite ñëw fi nga xamante ne léegi moom moo war a njëkk a wari léegi nga xam ne yow wooroon nga fekk ba tey fii bu weer wi ba nga nekkee Arabie Saoudite atteb Arabie Saoudite nga amee kon bu ñu wooree war nga woor bi nga ñëwee fii rek atteb fii nga amee bu ñu war wuñ doo wari
kon kenn sañu di nekk di ateo atay arab saoudi ci wàllu koor bi tam nga xam ne déedéet nga xam ne léegi bu fekkente ne war nga ñaari kii foofa ñëw fii ñu door a ubbi boo ànd ak ñoom war bu ñu waree fanweeri fan nga xam ne yow war da ngay war fanweeri fan ak ñaar waaw waaw waaw nan ngay def de nan ngay def dégg nga euh, dafa am benn explication bu ma dégg sax nit di ko expliquer te erreur nekk ci ñaari erreur benn bi dafa ne ñi wax naan Màkka woor nañu démb waruñoo woor tey wala waruñoo woor démb Màkka weer yi mën na feeñ mën na fekk jant bi muy soppooku mu nekk ci xamul ni ban heure la jàppati la misaale jant bi ànd ak weer bi di ñëw ba fii mu mu gis ko xam ne ay heure dox suñu diggante loolu mën na nekk ma ne benn kenn sax dàqul ne